maa ngi lay fay di nuyu ñu fi teew ñëpp ba pare di leen masawu foogoon nañ ñu ne loo xamante ne da ngay ñëw confirmer plainte kese génn la mais vu que les faits sont aussi graves te ñun xam nañu ko moo tax audition bi jël temps bi mu jël parce que onze heures la ñu fi ñëw onze heures fii la ñu fekk yéen a ko gisandoo pratiquement seize heures et mi la ñu génn donc nekk ñu woon ci biir di naan ataaya war a di def yu kenn xamul mais dañoo nekkoon ci liggéey bu sérieux te dafa laaj liggéey bu sérieux parce que lu ñuy tuumaal ay nit bés bu ko justice confirmé seen perpétuité xaj na ci kaso bi donc euh, réclusion criminelle mi ngi leen di xaar moo waral fallait que ñu def lu ñu ci war a def yëpp sans pour autant nag ñu dugg dans le fond du dossier parce que comme de mbir mi ñun nuñ ko waxee woon l'autre jour bu ñu dugalee suñu plainte ñu ne dootuñu xuusati ci dossier bi dans le fond parce que bokkul ci élégance rawatina ñun juriste de formation yu ñu doon ñu xam lan mooy secret de l'enquête duñu mënuñu fay taxaw di dugg di xuus ci dossier bi waaye lu waraloon sax ñu yokk am euh, yittewu taxaw jàkkaarloog yéen presse bi c'est pour que ngeen abal ñu seen couverture médiatique ñu mën a waxtaan ak suñu ay compatriotes sénégalais yi nekk fii ci biir réew mi ak yu nekk bitim réew parce que plainte bi su doon ci ñun kese la dépendre dañu koy considérer comme si que suñu vie la bokk suñu destin la bokk ñu jàll bàyyi leen ak yàlla waaye dafa bëri suñu ay yaay yu ñuy seetaan doon jooy ci luñ ñu def bëri ñoo ay sénégalais ñu ci ëpp ci ñoom seen xol ba léegi dafa ñëg par rapport ak ñun lu ñu jot a dund. loolu nag di wane ni ñun moomatuñu dossier bi dossier bi dossier sénégalais yi la et ne serait pour soulager ces sénégalais noo compatriotes sénégalais d'ici et de la diaspora parce que dañoo bokk ci ñu gëm ni xëy na su plainte amee dina am lu mu soulager ci xolu sénégalais yi nga xamante ne nuñ ñu def te mu nekk jëf ju ñaaw metti dina leen ba fu metti yem donc looloo tax ñu looloo ñu gën a encourager ñu ñëw tey euh, ñu ñëwoon ñu demoon déposer plainte sur la table du procureur de la république beneen bu koy motiver aussi mooy yàlla dafa dogal ni victime Macky Sall yi bëri na trop trop waaye tey la yàlla ci ñun la yàlla jaarale ba fu may waxee yow nii kuñ ñi ñu torturer donc kot ñoo am habilitation wu wala ñoo am prérogative wu topp ñu leen def loolu ci yoon donc segam nag ñun la ñooy sànni tàcc victime yi. en attendant législature yi législative yi di jàll ñu ñu xool nan ni ñuy def ba abroger la loi si mais tant que loolu amul même ñi nga xamante ne seen doom dañoo faatu ci manifestation yi ñooñu gën a mettile fuuf waaye mënuñoo topp kenn ci yoon parce que loi d'amnistie bi moo tax ñun ñii nag nga xamante ni ñun dañoo jàng xam ni euh, lu ñu def muy les actes de torture bokkul ci champ d'application loi d'amnistie bi donc ñun ñooy sànni tàccu les victimes yi nga xamante ne ñoom la Macky Sall ak nguuram àndoon di toroxal ci réew mi ñooñu tamit ne serait-ce que pour euh, mémoire victime yooyu ak euh, mémoire seen famille ñu ne nañu jóg jéem a enclencher des poursuites judiciaires ne serait-ce que pour apaiser le cœur de nos compatriotes sénégalais gis nañu benn list boo xam ne am na ci ñenn autorités yi euh, nangootuñu leen bàyyi ñu génn dëkk bi ñu bëggoon nga apporter ay leeral rek par rapport ak yow ñi nga xam ne ñoom nga jëmale ci sa plainte bi pour nit ñi gën a comprendre peut-être euh, ñenn ñi nga xam ne dañ leen teree génn lan moo waral li ni loolu man mënuma cee apporter benn leeral parce que man bokkuma ci pouvoir awma benn normal tànk ci pouvoir et que xawma tamit ban décision wala ban enquête moo am ci biir ba ñu jël interdiction de de sortie du territoire euh, lal ko ci ndodd ñenn ñi nga xamante ne ay kilifa woon lañ fi donc man loolu lu ma ci wax damay wax lu ma neex te bëgguma di wax lu ma neex lépp lu may wax damay bëgg mu am source beneen bu ci topp ñi nga xamante ne jébal naa leen plainte ñu jàpp ni ñoom bokk nañu ci jëye bi nga xamante ne dund nañ ko ci réew mi toroxal bi nga xamante ne jëm ñu ñu ko essayé toroxal ci réew mi parce que ñu ñu def loolu suñu sañoon tey du ñu taxaw fii di jàkkaarloog sénégalais yi di wax ñooñu ñoonu nag nga xamante ne njort la am ci ñoom parce que ils ont ils sont tous présumés innocents man juriste la de formation donc xam naa ne ils sont tous présumés innocents maintenant vu que procureur de la république mettre na en mouvement l'action publique ba def soit transmis indi ko fii ci division des investigations criminelles ma ñëw ñu auditionné ma ma confirmer plainte bi yeneen détails yi mënul woon dugg ci biir plainte bi ñu ñu ñàmbaas ko si enquête bi daal di door ñun mënuñu def leneen lu dul toog banque suñuy yoxo bàyyi justice bii nga xamante ne am nañ ci moom yaakaar parce que lii su nekkoon nguuru Macky Sall du am nguuru Macky Sall nekk naa ba ci biir kaso bi porté ay plainte Antoine Félix Diome porté plainte ñeneen ak ñeneen te boobu fa may waxee ak yow nii aboutirul fenn il a fallu nguur gu bees gi ñëw ñu indi un procureur boo xamante ne jàpp nañ ne kenn du ko def loo mu def te ñii fi nekk sax muy pouvoir exécutif bi gëw ma ne dinañ jox ay instruction ay procureur pour ñuy def parce que ñun loolu lañ doon xeex ñu ànd ceeg ñoom ci xeex boobu donc suñ ko defee day fay mel ni comme si que dañuy répéter li fi Macky def te am gëmuma en aucun cas que ni ñoo ñooñu dinañ wàcc ci niveau Macky Sall boobu moo waral comme tey yoon dafa am ci réew mi ñun ñu def nañ lu ñu yoon sant maintenant nag suñu ko sénégalais yëpp mayee ñu bàyyi yoon tamit def la ko war parce que dig bii ngeen di gis xanaa ñu bañ a yëglu waaye képp kuñ fi war a woo dinañ la dinañ la fi woo képp kuñ fi war a auditionné ci dossier bi dinañ la auditionné képp ku ci lak euh, laale moo xam mu nekk de manière directe parce que am na ñoom dañuy toog fu ñuy toog di joxe ay ordre ñooñu ci biir plainte bi la ñu bokk plainte bi du ñi nga xamante ne ñoo doon agir ci suñu kaw doon ñu torturer kese. mais ñi leen jox ordre ak ñi ñu doon woo jamono jooju ci plainte bi la ñu bokk. ñooñu nag mënuguñ leen xam tant que enquête bi demul ba fësal ni diw am na responsabilité wala am na li nga xamante ne laaleel na ko ci mbir mi moo tax ñun mënuguñoo jël suñu ay responsabilité encore une fois. plainte contre X nga def. defuñu plainte contre X ñu ñu plainte yow xam nga leen parce que yónnee nañ la plainte ba sénégalais yi xam nañ ñan lañu fi ñan la ñu visé d' autant plus que am na ñeneen ñu ñu ci yokk. maintenant nag pour rien que pour respecter secret de l'enquête déggoonte déggoon nañu ak suñu ay avocat conseil nañu waxtaan nañu ak ñun malgré seen euh, euh, li nga xamante ne mooy seen ñàkkum temps lépp luy waroon ci ñun def nañu ko moo tax ñuy profité ci occasion bi di remercier bu baax a baax ki nga xamante ne mooy maître Moussa Sarr xamante ne depuis le début mi ngi ci dossier bi maître Bamba Cissé depuis le debut mi ngi ci dossier bi maître Khouraychi Ba depuis le début mi ngi ci dossier bi waaye aussi suñu avocat bi nga xamante ne mi ngi nekk ba bitim réew muy maître Juan Branco moom tamit mi ngi ci dossier bi te ñoom ñëpp déggoo na ak ñoom démb waxtaan ak ñoom échanger ak ñoom laataa ñuy ñëw ci li nga xamante ne mooy mooy suñu suñu rendez-vous ñu joxoon fi suñu convocation bi donc ma bëggoon profiter aussi pour euh, interpeller ñi nga xamante ni xëy na ñoom la ñuy tàllal micro ñu bañ ñu bàyyi di def conflit ci bopp sénégalais yi. bu ñu fi dugalee suñu plainte dégg nañu fa ay soi-disant chroniqueur ak ay nit yoo xamante ne man ma fu ñu jàngee droit yu foog ni droit bi wax sa xalaat la alors que droit du wax sa xalaat lu tax mu metti ma parce que man depuis 2018 ba léegi droit laay jàng jànguma leneen defuma formation en économie defuma formation en management defuma formation en finance lu may def mooy droit moo tax ñun su suñu jógee teg ay jéego ñëpp dañoo war a am présomption que ni ñun lu ñuy teg xam nañu ko parce que dañ fay dégg ay nit yu naan plainte bi du mujj fenn parce que ñu mu porté plainte ay ay lañ plainte bi du mujj fenn parce que plainte bi nii parce que plainte bi naa parce que y a la loi d'amnistie te pourtant malgré explication yu ñu joxee amuñu sax benn euh, capacité intellectuelle dem defi ay gëstu parce que ñun jox nañ leen ba jox leen ay articles jox leen ay références nee leen soo leen demee sur la convention contre la torture article 2 alinéa 2 ku ko liir di nga xam ne torture amul benn exception bu ko mën a garanti bu ko mën a fànk amul fu waay mën a laqatu pour mën a def torture te du mujj fenn parce que alinéa boobu nee na même en état de guerre menace de guerre trouble politique amul lenn lu mën a justifier des actes de torture asatuma ak sagaru loi amnistie kon loolu tey procureur conscient de cela moo tax tey mu mettre en mouvement l'action publique au-delà de cette convention ku ci dem ci euh, code pénal bi ali euh, article deux cent quatre vingt quinze tiré un alinéa quatre ak alinéa cinq bi di nga xam bu baax que ñun lu ñuy wax teguñu ko ci yaama neex droit bi du wax sa xalaat encore une fois ku ciy taxawati di tenir benn discours xamal bu baax li ngay wax parce que ay sénégalais ñu ngi lay déglu te sénégalais yooyu di la déglu mën nga leen a induire en erreur parce que ñu bëri ñu ngi ñu ci doon interpellé nan ñu yéen ay cuune ngeen parce que plainte bi waroo leen ko woon dugal fii waroo leen ko woon dugal fa faa su fekkee ay ancien ministre la ñu la ñu porté plainte kon nañu dem voyager ak seen passeport diplomatique su fekkee ay ministre lañ ba léegi kenn ci ñoom amatul droit voyager ak passeport diplomatique am parce que titre ministre nekkul lu éternel soo ko nekkee ba teggeeku ko day dañ immunité bi nga amoon dootoo ko amati tu deviens un citoyen simple de ce fait plainte bu nekk mën na gàll ci sa ndodd et au delà man en tant que citoyen sénégalais man su ma portéwul plainte sur la table du procureur de la république d' après l' article 32 du code de procédure pénale ñu ne le procureur de la république reçoit les plaintes et les dénonciations man fan laay déposer sama plainte su ma déposé wul man sama plainte ci table procureur moom après mu jox les orientations qu'il faut fan laay déposer plainte ngay dégg ay nit di taxaw jànguñu droit amuñu benn culture juridique et ils se permettent de donner des des des des des des des appréciations yoo xamante ne deful dara lu dul induire les sénégalais en erreur et loolu dañ cee bëggoon interpeller ñu ku nekk ñu xam ne ñun lu ñuy def xam nañu ko parce que dañu ko jàng depuis cinq ans ñun su fekkul woon gàllankoor yu ñu doon gàllankoor biir université tey ñu ngi suñu deuxième année doctorat su du woon gàllankoor yu ñu am dàq yeeg jàpp dóor yeeg tëj yeeg nga am examen ñu jàppale tëj la ci kaso bi su du woon gàllankoor yooyu tey ñu ngi école université su tijjiwaatoon nii deuxième année doctorat la ñu war a inscrire donc xam nañu bu baax lu ñuy wax et au delà ñu am ay avocat yoo xamante ne jàpp nañ ne ñoo gën a xarañ ci avocat yi ci Sénégal maître Bamba Cissé kenn dootu ko présenté kenn rawatina maître Moussa Sarr maître Khoureyssi Ba kenn dootu ko présenté kenn maître euh, Juan Branco kan nga koy présenté léegi ci àdduna bi nga xamante ne ñun bu ñu rédi ñun ñoo rédiger suñu plainte soumettre leen ko ñu def ci seen ay correction suñu naroon induire en erreur sax ñu ne ñu lii ngeen di def du kii kon encore une fois nous lançons un appel la retenue